salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum West Africa salaamaaleykum worldwide yéen a ngi seen télévision wasaare célébrité ci wasaare TV ñu am seen émission bi nga xam ne moo di Galsen Game ñu bëgg waxtaanee ay quelques points ci li nga xam ne moo di hip hop Galsen jamono yi ñu toll li nga xam ne am na li nga xam ne moo nekk di circuler au toile ci li nga xam ne moo di internet bi ñu bëgg a waxtaan ak yéen ci premier trip mooy El Jazz ak ki nga xamante ni moo di One Lyrical beneen bi ci topp ñu bëgg a waxtaane kii nga xamante ne moo di ak ACBES ak projet bi nga xam ne mu ngi koy waajal ak li nga xam ne war na ko génne avant projet boobu noonu di génn beneen bi ci topp dinañ waxtaane kii nga xamante ne moo di Ngaaka Blindé Baba Ndiaye benn sound mu def récemment moom ak ki nga xamante ne moo di Naare Diouf Baba et Bella donc nañ ci waxtaan tamit tam yaatal ci bu baax a baax beneen bi ci topp nañ dem ba Diourbel seeti benn benn artiste bu ñuy wax moo bu caravane si moo aussi am benn single bu muy waaj a génne bu bëgg naa la ko tuddee dinañ ci yaatal tuuti ci eh, ki nga xam ne moo di moo bu caravane beneen bi ci topp nañu waxtaan ci Blame Pro ak benn projet bu muy waajal Blame Pro nag mooy ki nga xamante ne nii moo jëloon leçon bi nga xam ne moom la Vibe Radio tegoon 2018 bi Blame Pro moom moo jël remporté woon concours boobu nga xam ne moom la Vibe Radio tegoon Blame Pro nag mu ngi waaj benn projet ci kanam tuuti dinañ ñëw ak yéen yaatalal leen ba mu yaatu ci titre yi nga xam ne nii nañ leen ko annoncé bu ñëwee ci ki nga xamante ne ni moo di El Jazz mu def featuring ak ki nga xamante ne ni moo di One Lyrical sang bi nag mu ngi tudd TikTok waaw <laughs> TikTok comme nga xam ne TikTok moo lëmbee àdduna bi jamono yi ñu toll moment yi nii TikTok la ñëpp di dem pour nga xam eh, ni moo di One Lyrical tuddee ko TikTok am na benn benn benn objectif a atteindre ci li nga xamante moo di bi eh, nga seeraan ko et bi étewe na quoi produit bi nga xamante ne projet bi nga xamante kii di Akbess war nañu ko jox parce que gis nañ dès retour am ci game bi ba léegi classe de gauche par droite geng sa loof ay affaire yoo xamante ne def na ko fi yu bëree bëri ay sorte yu bëree bëri ñëw dañu tegal projet ah, donc projet bi nag mu ngi tudd xar kanam war a génn le 10 septembre 2020 waaw ñu ngi xaar projet boobu noonu projet bi nag bëri na ay tiitran ah, am na am na am na huit titres titre premier titre bi mu ngi nekk li nga xamante ne moo di moo di Am the Man donc am the man ça veut dire que su ma su ma jumul samay anglais su ma mooy man góor laa quoi donc am the man lan la bëgg a wax foofu noonu ñu ngi xaar sorti li nga xamante ne moo di projet EP bi xam lan la bëgg a wax foofu de foofu beneen bi topp moom mu ngi tudd xar kanam hmm? euh, moom la son boobu la jël sax tudd ko li nga xamante ne ni moo di projet bi mais mu ngi ci ànd ak euh, ki nga xamante ne moo di Dip Doundou gis donc son boobu featuring la moog Dip Doundou gis deuxième sound bi ñu ngi euh, troisième sound bi ñu ngi am li nga xamante moo di sens interdit sens interdit moom moo am sens interdit wala ñan ñoo am sens interdit sens boobu nag ah, yaakamte nañ koo découvrir ba xam lan la bëgg wax parce que titre yi rek daf lay yóbbu lu bëri daf lay voyager loo sens interdit kan lañ war interdit kan moo am sens interdit donc ça veut ñu ngi xaar titre boobu nga xam ne moo di troisième titre bi quatrième titre bi jot na génn ak clip bu dóob clip bu nice muy Gangs Love bi donc gars yi jot nañ ko ñam déguster nañ ko xam nañ li muy saf donc musicalement taxaw na lyrics yi tam tam de même ko mooy loolu noonu euh, cinquième titre bi mu am commando am en featuring ak ki nga xamante ni moo di Elzo donc donc commando ça veut quoi commando buy xeex la wala commando buy lan la euh, commando fu ñu ko déggee xam nañ ne ah donc ku gradé ci armée la ku nekk ci fonction yoo xamante ne ni sa sadégi la parce que commando moom li ñu ci xam mooy xeex ay paaga fi ay kii fii lan la bëgg a wax foofu ci centre boobu nga xam ne moo di commando bu ñëwee ci sixième centre bu tudda ko Ramos ah day bëri ne game dafa bëgg a suppaliku football la ah, gis nañ fi ay FIFA ay Paul Pogba nangam sangam tey gis nañ Ramos Ramos bu la wala ban Ramos la tamit des na lu ñu suñu xel parce que projet boo xam ne dañu annoncé projet bi rek ak affiche boo xamante moom la ki nga xam ne moo di ak bés génne mais exactement xamaguñ lan lay wax foofu noonu ci ramos boobu noonu septième théorie mu ngi tudd li ci bees ak li ci xaw a mooy def ci def en featuring ak ki nga xamante ni moo di One Lyrical waaw One Lyrical sapé en respect à toi parce que gis nañ ne son yu génn ci euh, semaine bi yëpp wala mois bi yëpp yu ci bëri dañ def featuring yow ay gars la ci ngay def ak featuring ñoom kon ça veut dire ne One Lyrical mu ngi liggéey ak gars yi am na benn collaboration bu rafet mook MC yi nga xam ne ñoo fi nekk mais photo moom nag dafa war a génn ah son bu war a génn la le vingt le vingt trois ah son bi dafa war a génn en clip vidéo war a génn son boobu nga xam ne moo di photo ma ah. projet bii nga xamante ni moo di moo di. xar kanam balaa muy génn son boobu day génn en clip vidéo le 23 6 en 8e mois 2020 le 23 août bi nii nii day génn donc nañ ko xaar ci réseaux sociaux yi nañ ko xaar ci plateforme yi nga xamante ne ni ak bés mu ngi fay lancer ay affaire am ñu ñëw ci dernier titre muy 8e track bi mu ngi ko tuddee ak bés ak bees waaw donc lan lay wax ak bees ça veut dire que bu ñu déggee tur bi daf ñu yóbbu ci ego tripping xamuñu ne ndax ego trip la wala lan la donc ñu ngi xaar projet boobu daal génn le 10 septembre 2020 bu ko defee ñu découvre lan lañu ak bees indil bu ñu ñëwee ci suñu deuxième point mooy bi nga xamante ne moo di baaba Ndiaye Baba Ndiaye <laughs> Ngaaka Blindé en featuring ak ki nga xamante ne moo di Nara Diouf saan mu ngi tudd nag baaba et Bella waaw Baba et Bella donc sound bi sound nu mbëggeel la mais li ñu ci jaaxal gis nañ clip bi génn tamitam xuloo la quoi amoo sama jot musique bi nga am jotam nangam sangama ñu gis xam ne moom moo job musique bi muy Omzo Beat vidéo boobu mu ngi commencé def ay ay affaire am ci internet bi mu ngi am ay vues parce que bi ñu koy mujjee xool ci moo di YouTube bi ci euh, seen YouTube bi nga xam ne moo di Omzo Beat donc vidéo boobu ñu ngi xaar mu ak ay millions de vues parce que euh, vidéo bi rafet na sound bi neex na vidéo bi am na ay qualité image yoo xamante ne ni mën musicalement war mën a ay bii fi mu toll nii parce que tamit ko dugal depuis le 14 peut-être am na lu manqué gars yi pour ñu dem YouTube di ko xool wala lan moo xew ci vidéo boobu noonu mais jot nañ ne war na bokk ci vidéo yi nga xam ne dina am ay millions et des millions de vues sur YouTube quoi. beneen bi ci topp mooy dañuy dem Diourbel ah, seeti ki nga xam ne moo di moo bu caravane moo nag di préparer benn sound benn single boo xam ne mu ngi ko tuddee bëgg naa. single bi nag mu ngi war a génn su vidéo lyrics ah vidéo lay doon mu ngi war a génn samedi samedi bi nii nii nii nii la la war a génn le 22 août ah 2020 ah vidéo lyrics dem leen ci plateforme kii nga xamante ne moo di Mobou Caravane xaar vidéo boobu mu génn parce que booy bi musicalement il est fort techniquement ay lyrics am jar na lu nekk quoi te Diourbel la dëkk il est talentueux ce gosse là. ñëw ci beneen projet boo xam ne Blame Pro moo koy teg bu tudd Top. projet la bo xamne dafa am top 1 eh, top 2 ba top 3 ci information yi nga xamne jëlé nañ ko ci manager mu wax ñuko moy day nekk top yo xamantene day génn sous forme de vidéo clip donc premier top 1 eh, bi eh, ah. nak mu ngi wara génn momi tam samedi hein donc waaw samedi bu leen affaire yu génn ci internet bi hein mu ngi wara génn sur sur sur youtube momi tam ah. samedi le 22 août 2020 la clip bob bob nga xamne modi top 1 bi wara génn ki nga xamne modi blem pro mom moko def blem pro nak mo jëlone compétition wala concours bi nga xam ne moo di leçon ci Vibe Radio bi nga xam ne DJ Tall moo ko organisé woon 2018 Blem Pro moko moo jël donc mu ngi def ay chama mu ngi def ay activité mu ngi def ay affaiream donc boy bu 30 booy boo xamante ne ni hip hop Diourbel respecté nako hip hop Galsen respecté nako parce que ku jël ben compétition wala ben concours bu tolné nii leçon donc nga jël ko fële nga xamante ne Vibe Radio donc am nga mérite aussi am nga talent bo am woon talent doo ko jël kon dem len xaari top 1 bobu noonu mu génn samedi 22 août 2020 ñu le ko donc mu ngi noonu gaayan ah, di leen bëggee bu baax a baax a baax respect for you journal euh, rap Galsen ci une émission Galsen Game présenté par Kago Boy bu gàtt bi aka l'homme fort aka ah,

benen e bi ci mujj won moy bi nga xamne ni moy e projet wu blem pro top les top 1 donc top 1 top 2 ba top 3 yep ay vidéo walay don euh, bu ñëk bi top 1 mi nga wara genn samedi comme ni leen ko waxa ñu leen jox dig dajian di leen respecter bu baax di bëgg bu baaxa baax njaareemu service def mon ami mon frère ma brother respect for you maa ngi lay bëggee bu baax a baax depuis Diourbel di bëggee aussi bu baax a baax sax ñaan mon ami mon frère xaritu Waly Diaye boobu depuis Turquie ah. respect for you donc mu ngi noonu di gërëm ñëpp di gërëm sama caméraman Basirou respect for you li nga cadre nice na trop di jox dig daje beneen numéro ah, en Game ah, ci seen journal rap wala ñu seeti benn invité fas yéene ko dara waxtaan ak moom li nga xam ne moo di hip hop